waaw maa ngi lay siyaare xaaral ñu ngi passé yëpp jaale suñu frère Moussa Diouf ñaan yàlla yërëm ko xare ko àjjana maa ngi sama saal di ko jaale jaale yow jaale Moussa di ko jaale Bala John di ko jaale Cheikh Diouf di ko jaale Moustapha ko jaale waa Réew yëpp di ko jaale Moussa ne dafa béy ko jàmm ak a kër gi bu ñëw fekk ko ci kër gi dañoo waxtaan ba ñoom may comprendre di ko jaale ay waajur bi ñaanal ko yàlla bu ko ci cat bu baax dem na suñu borom nag daa soxla bu baax yëpp ni ñu ko noonu la ko soxlaa bu baax baax dëgg yàlla fu ma gis def may ci boor ma ci na sama loolu laa àndee wala cër di ma woo jàppal ci xel yi waxal ci xel yi man li ma doon man pour jàpp ci incha allah incha spécial bi monté combat yi des fois ci kàttanu yàlla dañ doon leen am na ay booy yoo yëpp dañ leen doon jël tout le temps ñu yaa ko jaale maam lees tout le temps maa ngi wax ak moom sax ci mbër boobu comprendre nga donc ñun ñëpp ñoo ñàkk donc lamb nañ gën a jëfante cër naqar ak tiis ñoo ànd bi Moussa génne a mu tiis ñëpp ñëpp ñeewantal ko ñëpp wane ko donc kon nañuy demal nan continuer ci loolu jàppante li xaarib anta war a am man moom ko xaj li ñu am li ma war a am xaarib anta a ko xaj donc nañ xam loolu xam na suñu borom pare na démb li ci des mooy rafetal bokk ndey bokk baay te nag liggéey loo xam ne mooy jëmale Sénégal kanam daal ñu ko jaale Sénégal yëpp ñu ko jaale am lam nit ku baax la lan moo la gën a barke ci Moussa li ma gën a barke ci ak combat ma xam ngeen kilifa bu ñëw nag. muy Jibi Thiaw maire Réfane. yàlla na ko yàlla. nekk koo xam ne nii léegi la ma kii di wax ne defar la leen. man nag bu ma la waxee ba mille neuf cent laa ko xam woon mais yaakaar naa yow mii tuuti war nga cee mos dara ci weewu na ba may ànd ak garga boobu Moussa di ñëw ci garga bu garga amee combat Moussa fa la yedd ba ñu garga départ Moussa doon gën a bu maa ngi ànd ak muy sama wóor na rek naqar xam naa bii gën a gën a gën ba combat bi ñuy préparé moom Garga Mbossé ak Moussa Diouf man ak Moussa Diouf ñu ko préparé ci leen ba ca boor yi fële ca kaw ca kaw ca kaw boobu maa ngi taal sama kër yi ci mbaar sama kër yi ma woo Garga ñu génn ma dem ca kaw ah, donc suñu wënde Moussa di ko baax Moussa di ko am kóllëre Moussa gox maanaam missionnaire la moom dox dara ci jamono ànd ak jamono ji mu la wax def lu mu la mag bu am bu ñu daal loolu daal la wax dana wax kon am na lu ko yàlla moo tax mosoo dégg ñu ne Moussa muy toog kàddu gi mosoo dégg ñu ne Moussa nga xulóo mosoo dégg ñu ne Moussa nga xulóo damaat yére bii ma sonn sax bii ma sonn Moussa jox ma daa ma dégg déggoo ma yére ba ma ko jox ma leer na ne solo bi déggoo ma ji licence am ren defar naa defar naa saab defar naa sànq defar naa olympique parce que dañ doon xalaat zéro olympique nii deux mille vingt six ñu jàppale xale yi ci xeetu xam-xam ci àll ba sax ndax maa ngi doon gis fii wax dëgg yàlla xam gis nga yàlla dafa am at bi ma ko indee ñëwee moo tax ñu seet damay ñëw keroog mën na mën na li nga xam ne mooy doomu ndey avancé ci ci ko donc li li ñuy wax nag mooy baax na ku amul diine la ku amul islam te li ma gën a neex ci Moussa ba tax ma gën ko jàpp man bëri li may fàtte moo def dara lu ma am si mu fa bàyyi jiir wala ñëw dana la woon la maam bàyyi jiir kat bëgg na fee ñëw sax ma jël ko wala ma ko ko dana ko jël ko te nga waxee ñu toogee ñu toogee man tamit bu si ay sama kër ma war a waxtaan si ak islam danaan mën a maam mu maam nga war a nekk lu si rafet nangam bi nangam bi seet naa ko xam nga muy bu baax a la muy bu baax bi ma koy woo ak bi nga gën a wax bi ndax bu toog journée ba journée entière jeex te néew ma dafay doon naan moom ma ne ko bu jàpp si maam bi si maam dafa dajee vidéo yi nekk sama kër tey nga xam ne suñu missionnaire bi waroon dox ba jamono suñu borom yónni ko mu war a def maanaam maanaam maanaam man magam laa mu nekk sama maanaam dégg nga sama doom bi accidenté bi Sénégal bi mooy ñëw moom ñu def dafa daan def di leen ba ñuy ñëw sama doom dafa accident dëkk mu fi Moussa Dioum ñu ñëw na fi moom bato Sénégal ñu ngi yaa ngi ak ngeer fa lañ toog vingt trois jours loolu doyoo ko loolu kii sama fils la sama doom sama doom la xëyaat na laaj dama ñëwaat donc romb nañu wàllu coach ay entraîneur yi maanaam mat ak rek ñuy ku baax ku oyof ku omb ku set feebaram bi lan nga ci jàng ak lan nan la état sabab bi ndax Moussa ku ko xam xam ne ay taab da ko yoroon mais taab yi daawul génn ci taab da génn ci côté waxtaan yi wala ñu foo xam rek fi taab war am lay génn mais bu dee benn instant taab bi dafa wàcc ci tànk baaraamu fekk bu taab ndajoor bi bu mag bi moom la commencé di ko rongé ndànk ndànk maanaam comme ni ko gisee moom yaakaar naa wax naa ne mu bëgg a ci jaaraat mais dama la ko toll na ko. dem hôpital maa tudd di ñëwaat mais gis naa ne ak li nekkoon ci yaram bi comme comme comme coono ak coono dañuy jëkk tànk bi commencé rongé wu ba mu sonn ba mu sonn dañ ko bëgg a sax ba ni mu feebaree bu demee émission bi médecin yi fa nekk ba nga leen di balaa su ma sax fu mu toog ay suuf lañ set ak nangam nangam docteur yi ko toog yàlla mais bëgg na ñëpp nekk ci jàpp ngir nekk di fi tuuti ba si yàlla gën a gën a gën a moom mi ngi doon def. Eh, maa ngi ñëw de. li ma doon daal bàyyi ji war a jàpp bu saa baax na nit seen yàlla borom àdduna la suñu borom soxla na ko yàlla war métti bi ma ci am ak bi ma ci am. Eh, ñaari lamine yi. ñàkk a bàyyi soxla peut-être moo ma naq ma moo ma affecté. parce que war na ko daal man ñu xam mais nag biir kii la boo xam ne dana na ba def te seen tàngoor deer maanaam xam na moom mooy fanaan moom fanaan mu hôpital yàlla mu hôpital ba ni mu wàcc kon xam na ne moom la rek donc Moussa di ko wax Moussa di ko ëm Moussa di ko am diine Moussa bu ñu ko wax ci àdduna boobu rek ngir def am na fii ci ko da koy tontu dana la fekkal dana def nit di ba ñëpp bëgg mu sa dëkk gis maa ngi taxaw koo xam ne benn parcelle la dafa am noo wax lépp lu suma juum xamoon na Moussa Diouf ñu koy jàllale mu tabax ci yàlla lu jóge ci yàlla lu jóge waaw waaw di ko jaale parce que yëpp di ko jaale moom la képp koo xamante ne xam nga ku wax rek ci moom mënoo bàyyi bëri na jàmm bëgg ko woyof na ne parcelle da ngay xam ne yow Moussa Diouf la xel loolu kenn kenn ñu ngi ci moom kenn kenn ñu ngi ci moom waaw ñi nga xamante ne ñooy ay adversaire am ñu sekkal jàmm sax ñi nga xam ne ñoo dëggal kooku noonu ñaanal na ko ko li ñu mën mooy duñ ko mës a fàtte dañ koy ñaanal fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu kaw Moussa Diouf boobu ñun ay booy la Moussa Diouf fi doon fooy ñun tey ñoom ñooñu bëgg loolu am moom ñun dañ daan bëri ñu ngi si sara ñun dañ daan ñoom dañ daan bëri ñu ñëw dugg seen kaar yi ñun tey ñun mën naa ne ñoom ñoo ñu yar ñoom seen professeur ci ñoom ñoo suñu ñoom ñoom ñoom ñoo ñu dugal seen am ñun xamuñu leen ndax bëri jot na de te leen maanaam nee na xam dañoo yàgg si dina ko mën teewul Sadio laajal aatu aatu saa bu ñëwee ne ma yow bàyyi sa waay sa waay bu ma tudd ma ne ma Tapha Mbeur boobu nga rey ci WhatsApp bi fu ma toog ma moom ñu waxtaan bu ma dugg ci luñ waxtaan amul interview bu may def ba Sadio bu pare ne ma gis naa ci lii li nga def nii rafet na lii nii lii nii nee na kon bu baax rek amul combat bu am te du combat boo gañe wala boo ñàkk du ne la nii la rek boo defee nii lii ngay am boo defee nee lee mayal te loo def doon ngay gis boo ma ne a gaaw te noonu lay sama xarit ma koy ñaanal fi a fàtte non gisante wu ci durant parce que feebar bi ci koor gi man gisoo ko moo tax dëj bi bett ma trop maanaam ba tey nii man bi information bi doo génn dama doon toog ma ne ah. nit ñi ñoo taxaw jaale nit yar na doon fausse information loolu laa doon ñaan après nag confirmé ma sori woon ma mujj daw ñëw. non mën na ko gëm sur le coup Moussa Diouf daa ñu ko wax Moussa Diouf xanaa dañoo tuub mais da ngay xam ne yàlla bu soxlaa bu soxla da ngay ñàkk te ku nekk dem na waaye loolu waaw loolu nag seen saa yi xëy loolu soññu la ci ñun ñëpp gis nga ñiy dem ñëpp ay jeunes lañ kenn maa ngi dugg si. depuis bi nga dem Moussa Balla. Moussa Balla ngay baax a yàlla baax a yàlla. Jules Balde Junior. xam nga Abdoulaye di di di waxaat loolu soññu la ci ñun mënu ndaw yi. waaw xale yaa ngi dem kenn dëkk fi àdduna moo jeex dañu rafetal Moussa Diouf dafa mos a rafetal. Moussa Diouf mosoo mosoo wax nga pare ne ko a càmm. Sadio chaque jour day defar bu passé ni mi ngi fexe ñoom bokkul xaw benn moom mooy premier mbër bi taxaw ne bu ma bëggee dugal ci xalaat bu mu doon nekk ak Papa Sow bu ma ci dama ne bu ma ci bëri sama gor may do fay ay milliards baax gor la ñun yàlla nañ gore ni Moussa Diouf ñun yàlla nañ gore ni Moussa Diouf gore ñun yàlla nañ bàyyi ci li Moussa Diouf lim am nii tey seede bi ñëpp benn la ak moment bi mu dem waaw moment bi mu dem ci fukki fan yu mujj ci weeru koor yàlla nañu yàlla may li mu am li mu am amin yal na ko yàlla jéggal li mu ci weer bi te am nañu jot bu rafet ci moom ndax da koo rafetal. lan moo la a ko yàlla moom mii man ko fàtte. man Sadio mooy man ne man maay magam moom mooy féetee booy sama kanam man loolu mooy li mu xam ne rek moo sama whatsapp su ma toogee damay yàkkam ci lu loolu dafa may manqué la ci moom mooy woyof bi jàmm ji bëri kap bëri mbalak billaahi wallaahi mais yàlla moo mën a yërëm yàlla moo mën a jéggal yàlla moo jéggal. yàlla moo yërëm mais loo xam ne loo sama xarit Sadio sama saa mbir yi mooy ñaanal lu mooy parce que liñ liñ dund lépp mu rafet ay jàmm ay loo xam te ni affaire de mbégte bonheur te loolu nii nii mun nekk di yaatal bis bi mu la bis dina jot ma révélé yoo xam ne dund naa ko ne tey dañ fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jëm te ñaanal la boppam yàlla na ko cat ci ci bàmmeel waaw sëñ Fall jërëjëf